ñu booloo xeex xaajaarleeg xeet yi di xew ci jamono gi coronavirus xewee juróomi anam yiñ mën a jëfandoo mooy benn nañuy jàngal suñuy xarit ak jaboot yi ne coronavirus amut xaajaarleeg seen ñaar bu ñu tiiñal gan yi ak am di jaama réew mi ndaxte ci lu bari gan yi am nañ wérgu yaram te bokk nañ ci dooleel koom-koomi réew mi ñett nañu fàttale suñ boppa xaajaarle yi mun naa tax képp ku am màndarga jàngoro gi du feeñal boppam wala sàkku ndimbal te loolu mun naa indil ñëpp loraange ñeent nañu laabiir te ubbi suñu xol yi ci bépp doomu aadama ci jamono tolof-tolof yi juróom képp kuñ xam kuy wone màndarga yi wala am jàngoro gi nañ leen ñaax ñu woote ci 1025 te doo fay dara asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV dal leen si jàmm si kër gi mbokk yi ñu ànd ak yéen si bés bi ngeen ànd ak seen doomi Omar Tunkara bopp xibaar yi dinañ dem seeti ji la xewoon ca pencam ndaw ma foo xam ne justice ministre bi nag àggeewoon na foofu ay kayit pour ñaax député yi ñu yokk public state of emergency bi ba si diiri ñeent fukki fan ak juróom loolu nag député yi dañ ko delloo wane ne loolu du mun a antu ci réew mi. général Lamine Bojang mi nga xam ne moom moo nekkoon Gambia Action Party seen mbër mi nga xam ne moom lañ sampoon pour atum 2021 élection présidentielle si kooku nag fu mu toll nii euh, bi nag euh, dàq nañ ko batan nag wane na ne moom sas bi ko sasoon daal dafa mel ni loolu matal lu ko waaye dafa dellu nag tuumal parti bi moom Lamine Bodian ngir ci boppam ci euh, jàkkaarloo bi nga ne def na ko ak taskati xibaar ci réew mi foofu yëgal na gars yi ne na ñam bokkal ci parti ci boppam ñoom ñoo nekk di yàq deram naka fii ci réew mi ndax vidéo bi nga xam na naka dañ koo jël daal koy defar wane si ab awram daal loolu dañ koy jël ñoom seen bopp daal di koy jël tasaare ko ci internet bi mbokkay ci xibaaru bitti réew yi dinañ dem seeti ji euh, Somalie nag euh, seen i général bi nag maanaam ki jiite seen i soldats yi kooku nag wane ne dafa amoon pexe bi nga xam ne dañ ko ko tegaloon nag ko teg pour daal di koy rey waaye na euh, am na ñoo xam ne seen bakkan des na i bi nga xam ne ñu ngi ko doon def fu mu toll yi nag wane ne am na ñetti fan yi nga xam ne nag nit ñi ñu ngi génnoon ci mbedd yi def seen i ne président bi daal dafa war a dem tax na ba Eh, seen i takkadeer réew yi daal génnoon nañ ah, jaar yi jàpp ñi nga xam ne nag ñoom ñooy kilifa politique bi maanaam opposition bi am na kenn koo xam ne bàyyi nañ ko gannaaw bi ko bàyyi wane na ne dañ ko bëggoon a rey parce que fañ ko tëjoon daal eh, foofu nag eh, mu ne baaxul waaye tamit joxuñ ko benn lekk nag ci kaso mbokk yooyu ak yeneen xibaar daal si jàmm ñu ànd ak yéen ci faram-fàcce mbokk jàmm National Assembly bi maanaam ci uh, pencam ndaw réew ma talaata bi ñoom nag ànduñu ak uh, moom kii di justice minister bi di Dawda Jallow lam leen àggee foofa parce que nag mu ngi doon ñaax gars pour ñu yokku state of public emergency bi ba diri ñeent fukki fan ak juróom loolu nag ba nga ko fa àggee nag am na ay firnde yi nga xam ne teg na ko foofa waaye nag uh, député yi ñoom nag wane ne ne loolu mënut a antu lu toll si ñaar fukk ak ñett ñoom ñoo wane ne daal state of emergency bi nag mënut a continuer fii ci léegi nag mbir mi bàyyee nañ ko ci loxo moom kii di président bi Seydou Camara la ñuy dem seeti si xibaar boobu mu bu nguuru réew mi di sàkku pour ñu daal di yokk state of public emergency bu ñu am ci biir réew mi lu toll ci ñeent fukki fan ak juróom bañal nañ leen ko ci pencam réew mi gannaaw bi nga xamante ne gën cee bari ci député yi daal nanguwuñ loolee. Attorney General and Minister of Justice di Honorable Dawda A Jallow moom moo àggee mbir mooma National Assembly bi waaye feefee nag gis nañ ne député yi ëpp doole ci ñoom ànduñu ci mbir mi. fàttali na député yi ne fukki fan ak juróom-ñett yi ci weeru maaj atum 2020 gannaaw bi nga xamante ne àdduna si yëpp jog nañ pour xeex jàngoro coronavirus bi njiitu réew mi di président aadama Barrow nag sukkandeku na ci section 34 subsection 1A bu 1997 constitution bi. foofa nag am na li nga xamante ne àggee woon nañ ko pencam réew mi ñu dugal ko ci li nga xamante ne moom lañ tuppee ci gazette foofa nag jiiti réew mi xamal na leen ne mbir mi nag bu gënee jéggi dayoo daal ci réew mi dinañ amale luñ tuppee ci state of public emergency pour xeex jàngoro coronavirus bi. léegi nag moom jëwriñ bi xamal na député yi ne jamono ji daal jàngoro coronavirus bi lim bi mu ngee gën a yokk ci biir réew mi mu ngi gën a yokk ci àdduna wërngël képp waral na nag war nañoo yokk state of public emergency bi ci biir réew Ousmane Sylla moom it ab député la memba bu Banjul not ànd na ci kàddu yu bàyyeekoo ci jëwrin bi muy wane ne daal state of public emergency bi dañ ko soxla fii ci bureau mi te war nañ koy yokku pour nit ñi ñu daal di jëfee li nga xamante ne moom moo nekk sarta yuñ tëral ci réew mi pour muslu ci jàngoro coronavirus bi waaye tamit bañ wallaate bu bari bi gannaaw bu mu yëkkatee ay kàddoom nag ànd ci loolu nga xamante ne nguur gi ñu ngi koy sàkku yeneen i moroomu députéem nag ñoom bañ nañ nu nu mel ndaxte mujjeen téel bi buñ sànnee kar tey daal gis nañ ne gën cee bari ci député yi ñoom dañoo bañ pour ñu yokk state of public emergency bi ci lu toll ci ñeent fukki fan ak juróom Seydou Camara Star TV News. moo koy benn tey ci mbiru Gambia Action Party la ñuy des ndaxte parti bi si boppam si uh, seen kilifa yi ci talaata bi am na dogal boo xam ne jël nañ ko maanaam daal si gàttal dàq ki nga xam ne moom ne moom moo nekk seen i presidential candidate bañ tànnoon uh, pour atum 2021 gannaaw bi nga xam ne am na xibaar bi génn si buy wane ne uh, ko ab vidéo nag jël ko di ko si internet bi foofu nag wane fa ab awram waaye nag moom Lamin Bojang si boppam fukki fan yi ak ñeent ci weeru euh, julaay Seydou Camara lañ see seeti mu ànd si yaatal. ci semaine bu ñu weesu nag coow lu rëy moo amoon ci parti leen mu di GAP gannaaw bi nga xamante rek seen flag bearer bi mu di général Lamine Bojang moom nag am na ab vidéo bi nga xamante rek ñu ngi koy wërale ci social media bi mu doon vidéo bu ñaaw bi nga xamante rek ñu bari ci réew mi rafetlu wuñ ko. waaye moom général Bojang sax génn na wax ak taskatu xibaar yi gannaaw bi nga xamante ne oote na jaloo ak taskatu xibaar yi foofa nag indi na ay leeral di wane ne vidéo booba nag wane nañ fa ab xarkanamam waaye vidéo bi du dëgg benn yoon vidéo bi nag li ko tax a jóg mooy pour yàq turam moom général Bojang général Bojang emul foofa sax muy wane ne parti bii di gàpp foofa nga xamante ne fa la bokk ñoom ñoo komplo pour yàq ab deram fii ci biir réew mi ndaxte ñoom ñoo nekk ci gannaaw vidéo boobu ci yooyee jamono nag parti bi mu di gàpp ñoom tamit daal di nañ oote ab meeting ci seen i diggante ñoom i neen pour ñu waxtaanee lu aju ci wàllu vidéo bi waxtaan yooyee nag nangutoo buñ ci am mooy pour ñu daaxa général Lamine Bojang ci seen i parti bi waaye tamit du nekkaat seen flag bearer yi ci élection yi nga xamante ne ñu ngi koy waajal ci biir réew mi mu di 2021 presidential election yi. ñoom gaab nag nee nañ bugguñu woon a dàq kii di général Lamine Bojang ndaxte bu vidéo bi génnee daal taxaw woon nañ Lamine Bojang taxawu seeni parti bi pour gis ne dinañ sàmm parti bi turam sàmm tamit turu seen flag bearer bi mu di général Lamine Bojang waaye nag luy xew ci biir internet bi daal ñoom mënuñu ko contrôle ndaxte ñu bëri ñu ngi wërale euh, vidéo booba ci noonee ñoom parti bi sax ànduñ ci oote bi nga xamante ne général Lamine Bojang oote na ko pour waxtaan ak taskatu xibaar yi ba pare sax yëkkati baaraamu tuuma joxoñ ko paateem bi leen mu di gàppa ci vidéo booba parti bi nag nee nañ général Lamine Bojang bala moo oote press conference nag daf ko war na yëgal parti bi waaye yëgalul leen ko dafa jékki-jékki rek oote press conference waaye tamit yëkkati baaraamu tuuma joxoñ leen ko ci vidéo boobu kon nag ñoom jamono ji daal mënatuñoo def dara ci mbir mi lu mooy ñu daal di daaxa général Lamine Bojang ci seeni parti bi pour sàmm deru parti bi ba looloo waral nag wax nañ ne général Lamine Bojang nag bu buñ ko daaxa tàmbal na ni ki fukki fan ak ñeneenti ci weerub julaay atum 2020 Seydou Camara Star TV News. ginnaaw nag ba United States ambassade embassy bi génnee ab report buy wane ne nguuru président Adama Barrow bi ci wàllu koom-koom ñu ngi tegu ci yoon eh, ki nga am ne moom mooy wàcc ci ñu président bi foofu la ci palais bi mooy office of the president moom ki di Ami Bojang Sissoho am na nag ay kàddu nga ne wax na ko wane ne daal ne nguuru président Adama Barrow bi dafa am nag ab foundation boo xam ne moom lañ bëgg a teg naka fii ci bureau mi foundation boo xam ne naka bu dëgër la eh, ci xam ne seq na ko ak Star TV dem seeta ji Seydou Camara ci xibaar boobu mu andi si bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyee bàyyeekoo ci director of press foofa ca state house nag gaarale na ay kàddoom muy Ami Bojang Sissoho di wax ci lu jëm ci wàllu ràññee bi nga xamante rek United States of America seen embassy bu nekk fii ci biir réew mi ràññee nañ ko nguuru réew mi ci wàllu njub ak doxalin bu baax ci lu aju ci wàllu alal ak koppalu réew mi ci at bi nga xamante ne moom lañ weesu moom Ami Bojang Sissoco nag wax na ne lii jubluwaay bu baax la ci biir réewu Gambie te mu ngi xamle ne nguuru président Adama boro bi mu ngi tege ci yoon pour fexe ba gis ne daal dinañ am yokkute ci fànn woowu. mu ne lii nag day gën a yokku xarañte ak liggéey bi nga xamante rek nguur gi dinañ ko def ci wàllu njub ci anam bi nga xamante rek moom la ñuy jëfewee ci kopparu réew mi. director of press di Ami Bojang Sissoho di wane mbégte ak kontanteem ci lii nga xamante ne rek ràññee la bu baax buñ yëkkati jëmale ko ci nguuru réew mi waral na moom itamit jaajëfal na ministry of finance mu di bunt bu yore aju ci wàllu dépassu réew mi ci njub bi nga xamante ne wane nañ ko ci liggéey bu ñuy def fii ci biir réew mi waral na sax mu oolu yeneen bunt yu nekk ci réew mi pour ñu rey bunt bi lee mu di ministry of finance moom Ami Bojang soxo mu continuer ay kàddam sax di xamle ne nit ñi dañoo war a xam ne nekkul xibaar bu nekk rek dafa war a jëm ci nit ñi am na xibaar yoo xamante ne nit ñi war nañ koy jot waaye am na yi nga xamante ne rek ci exécutif bi la war a yem ñoom ñoo war a wane seeni doole ci mbir moomu muy xamle ne sax bu fekkee ne lu ñuy séentu ci li nga xamante ne rek moom moo nekk information bill bi daa dina antu fii ci biir réew mi loolu nag dina yombal lu aju ci wàllu jotam xibaar ci réew mi te dina dimbale taskatu xibaar yi pour ñu mun a jot xibaar yi ñu war a jot ci loxo nguur gi ak bunt yi nga xamante ne ñoo nekk ci ron nguur gi naka noonu yi tamit muy wane ne bu fekkee ne luwaa yooyu nag daal dinañ ko dugal ci réew mi daal luy mbir mi mooy ndax dinañ jëfe luwaa yooyu comme luñ ko war a jëfee wala dinañ ko bàyyi di ko seetaanee noonu rek mu nekk ci téere réew mi te du njëriñ réew mi seydu Camara Star TV News mbokk yi ñu sant ak gërëm seedu si xibaar boobu su ko defee ñu dem seeta ji euh, tokki seen i embassy bi fii si bureau Gambia ñoom nag ñu doon màggal ñeenti at gannaaw nag bu ñu amale woon coup d'état foofu la seen réew coup boo xam ne jàpp nañ ne moom mooy bi gën a lor seen i euh, doomu réew yi depuis euh, tokki soso ba tey jile loolu nag doon loo xam ne nag wane ne at bu nekk nag dañ dee faral di def ab gestu ci wàllu woowam wala bokk di ko màggal nag fii ci bureau mi ak i tamit foofu la ca tokki ba tax nag ren fii ci bureau Gambia nag màggal nañ ko ñu dem seeta ji daado caam si xibaar boobu mu andi si leeral ab coup d'état bi nga xamante ne ab organisation de ab mbootaay ñoo ko daal di woon commencé euh, def foofu noonu ca Toki ci fukki fan ak juróom ci weerum julaay 2016 la amoon ba lu toll woon si ñaar téeméeri doomu aadama ñàkkoon nañ si seeni bakkan li nag wax nañ ne ekkiti woon tuuma bi teg ko ci ndoddu ki nga xamante ne nag ab américain la toogoon foofa ca Toki ñu xamee ko ci Fatali Galan moom nag moo daal di woon. togg lépp loo xam ne rek méngoog nag coup d'état booba waaye nag si sañi wax wax ne ne tokki si sañi bopp nguur gi fexe woon ne nag ba ndam amutoon ci lii di coup d'état booba fii ci Gambie bi nag foofa ca ambassade ba ne foofa ca Burfut tokki daal di fa toogal ñi nga xamante nag ñooy Gambie ak tokki su ko defee seen diggante yi daal di gën a war a mën a fii ci biir réew mi ñoom nag ñoo daal di feetoo wala sax daal di war a mën a doomu aadama yi nga xamante nag ñàkkoon nañ sañu bekken ci coup d'état moom ambassadeur bi nag si kàddu yi nga xamante nag gaaral na ko fa wax na ne li nekkul rek ne dañuy feetee mbir mi maanaam li nga xamante nag leen mébatoon ñoom ñi fitu euh, pour ñi daal di war a mën a jël lii di boppi nguur gi waaye jëluñ ko waaye tamit nag den euh, fexe euh, pour rek at bu nekk ci fukki fan ak juróom ci weerum julaay rek dineen fexe fàttali doomu aadama yi nga xamante nag ñàkkoon neen sañu bakken ci coup boobaa wax na itamit nag ñoom nguur gi si sañi bopp foofa ca tokki fexe ne nag ba ñu nekkoon ci gannaaw mbir mi di ko toogu yóbbuween leen foofu noonu ca atteka bi ñu daal di leen atte ba ci jamono juntoon ni ñu leen tëj kaso moom ambassadeur bi ci ay kàddu wax na ne li nga xamante nag mooy ab coup bu gaay mébatoon pour am foofa ca tokki daal ba ñaar téeméeri doomu aadama yooye ñàkk si sañi bekken métti woon na lool ndaxte nag ñu toggoon mbir mi dendoon sax sànni ay bal di ko jëmale ci nit ñi nga xamante nag sax xamul sax mbir mi nu melee loolu moo tax nag ñoom lii dañ ko dee masaw bu baax a baax ci doomu aadama yoo xam ne ñàkk neen si seen i bakkan ak tamit seen i njaboot waaye nag mu ne mi ngi jaajëfal nguurub Gambia ci jamono jooju ndaxte nag am na li nga xamante nag defoon neen ko ci wàllum xeex mi ba fexe lépp loo xam ne rek méngoo nag pour tokki ñi daal di delloo jàmm bu fa nekkoon Gambie si sañi bopp defoon neen li leen war ba sax nag school bi nga xamante nag ñu toggoon lii di coup boobu noonu ñoom ñoo ko moomoon fii ci biir réew mi lii di nguurum président Jammeh daf ko tëjoon te loolu nag mu ne mu ngee jaajëfal li nga xamante nag mooy nguur gooba ci li nga xamante nag mooy matuwaay booba ndaxte nag Gambie bokk na ci réew yi tund Afrique boo xam ne daal fexe neen daal di bokk ci xeex bi su ko defee tokki jàmm bi nga xamante nag mu ngi am foofa mu daal di war a mun a continuer lii nag bokk na itamit nag ibil neen bunt bi képp koo xam ne rek buggee naa dem foofu ci ambassade bi su ko defee nga daal di war a mun a gën a am jàggat ci mbir bi daal li toll ci juróom ñaari fan ibil neen ko pour lii di askan bi ñu daal di war a mun a dem foofu nemmeeku mbir mi Dado Thiam Star mbokk yi ñu sant ak gërëm Dado Thiam si mujjandali xibaar boobu si réew mi su ko defee dañuy jàll dem seeti ji xibaaru bitim réew fañ tàmbalee mooy ci réew Mali foo xam ne euh, foofu nag askan réew mi dañoo génn ci mbedd yi wane nag seen i naxaar si li jëm ci wàllu nguuru ki nga nag moom mooy euh, moom kii di Aboubakary euh, Keita Ibrahima Aboubacar Keita Ibrahima Aboubacar Keita nag ñu ne depuis atum 2013 ba léegi moom moo nekk si xilaafa gi waaye nag wane ne moom mu ngi toll si juróom-ñaar fukki at ak juróom 75 years booba léegi nag wane ne daal nguuram bi ñu ne dara doxul si ba na nit ñi dañoo génnoon ci mbedd yi am ñetti fan yi nga xam ne bi dafa tàngoon ah, dañoo génn ci mbedd yi téye ah, ñi nga xam ñoom ñoo féete wàllu di ah, opposition bi maanaam seen kilifa ñoom la gaa yi woon am na kenn si ñoom ba pare dañ ko daal di kidnap ko kidnappé nag mu dañ ko yóbbu ci béréb boo xam ne fañ ko tëj mu foofu baaxul benn yoon parce que joxuñ ko ñam waaye tamit nag fam nekk foofu noonu amul dara li nga xam ne moom moo fa baax maanaam dañ ko isolate jokkoowu tamit ak kenn mu ne bu gaay di ñëw fukki watu yi ak benn ci guddi la gaay te buñ ñëwee dañoo jékki-jékki rek daal euh, konko nguntaam bi ba ko ibee dañoo def seen bopp comme si njaboot bi la gaay bokk bañ si biir euh, ko dugal foofu baaxul maanaam si kaso moom jàpp na ne euh, dañ ko bëggoon a faat nag ci kero googa mu moom nag téye ko téye jamono ji daal delawut ko gannaaw de maanaam dafa gën fas jomam parce que gis nag ñu ngi ci ginnaawam te loolu moo a daa mu gëm ne moom mu ngi ci yoon euh, kon nag yi mooy ne dañoo bëgg a nag jàmma delluwaat ci réew mooma moo taxoon ñu jàpp gaay waaye nag kaay bés ni kii euh, démba ñetti ñoom ñi nga xam ne ñu ngi leen téye woon foofu la cali Mali moo koy Somalia la ñuy dem seeti Somalia tamit nag euh, seen ami commanda bi mooy ki jiite soldats yi foofu la ca Somalia moom ki di général Youssouf Rage moom nag euh, wane benn ka euh, attaque bombe bi nga ñu ngi ko defoon ci diggu foofu la Mogadishu mooy capitale bu di di Somalia foofu dafa amoon paix bi nga xam ne way fippi ñu ngi ko ko tegaloon foofa ndax dafa am benn oto boo xam ne dañ ko yëpp ab bombe ba mu fees tepp ñu pare woon ko si rey nag waaye yàlla dimbale ko nag mu daal di mucc am kenn koo xam ne nag moom bakkanam dafa des foofa soldats yi nag kii wax si

wane nag daf dee faral di am foofule sa Somalia maanaam attaque boo xam ne ñu ko dee faral di def soldat waaye attaque li nga xam ne bu mel ni commandant ami bi musta am foofu wala bu amee tamit génn am foofule sa lii di euh, euh, Somalia nag seen ami bi ñu ngi digal seen askan réew mi ne dinañ continuer di sàmm gaay di sàmm li nga xam ne nag moom mooy seen waaye tamit nag ñu ngi dig askan réew la jaru ñuy dinañ dem seeti ji <clears throat> United States of America seen vaccine test bi nga xam ne naka ñu ngi koy des euh, wane daal am na benn garab boo xam ne defar nañ ko pour ñu daal di koy fajee jàngoro corona bi garab boobu nag gars am nañ ci yaakaar parce que scientifiques yi nee nañu daal am nañ yaakaar bu baax ba am nañ kontante si seetlu bi nga xam ne nag jot nañ koy defagum ba tey jile si xibaar bi nga xam ne ñu ngi ko génnee ci talata euh, ba pare léegi daal wane ne jubluwaay bi nga xam ne nag moom lañ jël am yaakaar bu baax a na nag ñu ne vaccine bi am na nag ab yokkute bi nga gis nañ ko si depuis ko tàmbalee ba tey

tamit dañ si war a bàyyi seen xel bu baax a baax balaa ñoo jox gars yi vaccine bi naka ñu koy jëfandikoo mbokk loolu moo nekkoon sunu mujjëndeel xibaar man Amatou Ngara maa leen ko doon àggee Basirou Sall moom moo nekk ci uh, caméra bi Paul Steven Pereira moom moo teewal lii di xibaar yi Aliou Tunkara ak Mbaye Mbuub ñoom ñoo nekk ci uh, machine bi jërë ngeen jëf